Ele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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولدي بوكي تالي مريد يب ماني يكتي سما كادو تي ديغالو سيرين توبا سرين شيخ سيد المختار مين خامني مو في جيم سيرين توبا تاي تي كو سوف دي نيان سون بوروم بايكو في مو ياغ لول تا اندكو غير ba naal yi nga xam ne am na ko ci liggéeyee lislaam te mooy dajale jullit yépp ba ñu nekk benn suñ borom may ko kàttan ba mu àggale ko ci jàmm mboolem yéen ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal sëriñtuwaa Touba yàlla na ko fi sunu boroom bàyyi ba mu mottali ko ndax moom jëmm joo xam ne képp ku Serigne Touba tànn nga toogal ko fi rek loo ca dolliwaat. ci di melal ni mu mel ci ak baax day mel danga koy wàññi te yëgoo ko ndax sunu borom sëriñ Tuubaa moo leen tànnal boppamu ba képp ko ku ko fi nekkal rek moo la fi moom nag jëmm joo xam ne ku ko xam ku ne xam ne amul jenn yitte ci àdduna lu mooy jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ Tuubaa kilifa ngu mel noonu ku ko am ak ko xam ni àdduna mel fii mu tolloo war nga koy ñaanal bu baax ndax foo ko fekk rek foo gisee jëmmam sa xel dellu ci suñu borom te loolu bokk na ci li ñuy gën a doy kilifa kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg loolu tam ànd ak wér bi may ñëw itam maa ngi ànd ak mboolem ay doom di ak njabootam di njabootu Serigne Touba gépp di leen jot li itam nuyooyu jëwriñam ji nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha mu Cheikh Mouhamadou Bachir nga xam ne yàlla dogal na jataay bii bëggoon na koo teewe waaye yàlla dafa dogal mu ami gàllankoor moo tax ñëwut ma teewaaleel ko fi kon kàddu yi ñuy wax ci ndigalu sëriñ bi lañ koy wax jëme ko ci mboolem taalibe yi yëpp bàyyiwuñ kenn tàmbalee nuyoo bi nag ci bokki taalibe yi ni ko sëriñ Mbàkke yi fay waxe moom mi nga xam ne moom la sëriñ bi tànn def ko muy jëwriñam ci ndakaaru ak li ko wër sëriñ bi wax na ne mi ngi koy sant li ko gërëm bu baax ci taxawaayam ak postéefam ndax ku bëgg sëriñ Touba te bëgg sëriñ Touba boo ko xasee def rek day day daal ci si biir moo tax sëriñ bi mu ngi koy gërëm ci taxawaayam ndax bañ ko sëriñ bi waxee ñu jottali ko ndigal li mu yóbbal ko taalibe yëpp ànd ko bokki taalibe yëpp taalibe yëpp itam sëriñ bi naan mi ngi leen sant di leen gërëm door a ñëw ci kàddu yi nga xam ne yóbbante na ma ko mu jëm ci yéen di itam ministre de l'intérieur Mbaye Ndiaye moom mi nga xam ne moo fi ñëw ànd ak Mor Ngom mi nga xam ne mooy ministère bi yor wàllu transport ak infrastructure ma jumut ñu ñëw teewal fi président de la république Macky Sall di ko yóbbante am nuyoo ci moom bu bàyyi ko ci sëriñ bi ci teewaay bi nga xam ne teew na ko ci barab bii ndax sëriñ bàkk yu fay jot nañu taxawaay yi nga xam ne ba nga ko yëgee leen ca waroon def lépp def ngeen ko kon nañ ñu koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaanal itam yan bi nga xam ne réew mépp maase nañ ci yan ko ko suñu borom mooy ko kattan ba mu àggale ko ci jàmm ndax bu ci amee ndam itam ndamul Sénégal gépp lay doon di gërëm itam Pape Diop mi nga xam ne mooy président du Sénat moom itam di ko sant bu baax ndax mooy itam suñu digg moom ñëpp xam nañ ko bakki yu fay leeral na ci barab bii li nga xam ne def na ko fi lépp muy loo xam ne àdduna sépp xam nañ ko ba tax jërtu baamu tam mooy itam ñu ngi koy sant di ko gërëm ci li xam ne def na ko ci jotaay bi ak daje bi lépp ba yàlla dogal mu mel nii ak mboolem taalib yi ci jëf yëpp ginnaaw bu loolu jàllee nag kàddu yi du guddoo ndax waxtu bi dafa xat xam naa la cee soorte ëpp ñaar fukki minute te Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nodd ñaari baat rekk la mooy allahu akbar ak laa ilaha illallah mu ne allahu akbar mooy lum la fekk leen lu ne lu ko gën a war ñëw na mu ne laa ilaha illallah it mooy foofi mën di jëm te du man yàlla mu ne foofu du fa jële dara mas naa wax itam ne assalaamu aleykum wa aleykum salaam mu ne nuyoo ñaari baat rekk la mooy allahu akbar ak laa ilaha illa allah mu ne asalaamaaleykum waaleykum salaam mu ne asalaamaaleykum ki nga koy wax yaa ngi koy wax ne ko mbaa sore nga lu ñu tere waaleykum salaam mu laaw nga ne kon da nga am jàmm mu ne mbaa jàmm nga am itam mooy mbaa yaa ngi ci ndigal suñu borom bi jàmm rek nga ne ko mu ne kon da nga amul mucc mu ne bu ko defee nag ka gën a xam morom ja borom ba na ci jëm moom waaye lu yàgg-yàgg bu ñu fee wax lu sànq waxtu kon nag Serigne Touba diir lu mu fi nekk lépp li muy digal nit ñi mooy li nga xam ne moo nu fi indi te bàyyi ñu fi mooy jaamu yàlla suñu borom ndax loolu mooy li jiitu ca lam daa digle mas naa wax ne yàlla suñu borom dafa bind ay ndégalam lënkale ko ak mbégam jël meram lënkale ko ak ci tereem jël mbootam def ko ci jaamu bu ko sob ba tax na fu ngeen fi gisee te waaye teral leen ko te bu leen ko tànn biir mas naa wax ne nit ki de boppam la ak ci mbokkam ak alalam ak jëfam mu ne nit ki waxtu wu demee ba soxlaatul ñam wu neex soxlaatul jigéen ju rafet ñàkk na boppam ay mbokkam fa sës mu ne mbokkam yooyee buñ ko taxawoo ba mu faatu bañ rob ko ba suul ko ba sarxal ko ñàkk na ay mbokkam alalam fa sës mu ne alalam joojee buñ ci génnee ay borom la ca suñu doon ko ko ñàkk na alalam jëfamu fa sës mu ne jëfam judee jooje nag bu dee lu baax du ca gis lu ko naqe waaye bu dee safaan ba rek wala hiyaasu billaahi taala mas na am benn mbokkum julit mu ànd ak sëriñ bay jaxte ñëw ci sëriñ Touba fekk ko ci njaarim sëriñ Touba di waxtaan waxtaan wa yéem ko lool mu daanu jël fekk wenn façon naaru góor woomu waroon mu ne jox na ko sëriñ bi àddiya ñu wax ko sëriñ bi sëriñ bi nee leen ko na jege si ma jox ko sàll wu gën ko mu waroon mu dikk mu tombal ko ñetti tomb ne li mat a def ak li mëtu la def ak li ëpp def mu ne ko li mat a def mooy jaamu yàlla ndax moo lay may àjjana di la musal ci sawara li matu la def nag mooy fo ndax du la may dara du la musal ci dara mu ne ko li ëpp def nag moom bu ko sa sa xalaat mooy lu def lu naqar yàlla mas naa wax itam ne dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee gudd fan ne ko doomam fi bàyyi àjjana ne ko ma teeru leen dalal leen daal di wax ne dee leen mooy safaan ba ndax bu jugee gàtt fan ne ko doomu fi bàyyi sawara ne ko ma teeru leen dalal leen daldi wax ne dee leen mooy tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du ñoŋ daane dee leen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp réer la te ku yàlla réer seytaane lay womat te seytaane ku mu womat safaan ba lay jëmee daane dee leen mooy waxe bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontoo la bakkan ngeen féewoo te féewoo lu ne xaj na ca daane dee leen moo te jaar ca ngir ba ndax kuy féetal ku nekkat fuy fii ngay mujje mu ne mu ne manum lëm mu ne nag boo lemee boo yéree lëm ma doo ca fekk lëm mu nag mu ne kon nag ku bëgg a wéy te bëgg yóbbaal la nga yor te boo boo demee fekk fa la nga bëgg dangay ngay folli say nopp tofal say bët kon nag wax ji liñ ci war a wax rek mooy delloo suñu bopp ci yàlla dañuy suñ bopp suñ lépp jëbal ko Sëriñ Tuubaa te xam ne bu ko jëbalee suñ lépp mu defaral luñ suñ lépp ndax moom waxoon na ne ku ma jëbal sa ku ma jëbal sa ma defaral la sa ku ma jëbal sa leen defa téye sa leen nag la ma defar la nga ma jëbal ma defaral la ko kon nag nañu fexe ba bañ a desalal dara suñu bopp suñu digg ak Sëriñ Tuubaa te ñu xam ne képp koo xam ne ñëw ko ci Sëriñ Tuubaa wax ko ne ko dama laa yaakaar àdduna ak alaaxira jébbalu ci moom nanga xam ne dangaa signé ab contrat sa digg ak sa borom mooy li suñu borom waxoon ci diggam ak saxaaba yi istara minal mu'minin anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna dañoo jaay seeni alal ak seeni jëmm jënde ko àjjana nit nag bu jaayee dara te yaakaar a jot ci njëgga na xam ne la mu jaay moo moowatu ko kon ñoo xam ne suñu lépp sëriñ Tuubaa ko moom jébbal gi ñu ko jébbal sëriñ Tuubaa nag loola mooy li Serigne Touba wax ci murid saadix dañu wara fexe ba xol ko bu fekente ne lenn manki na ca ñoo xamne suñu murid saadix wérut Serigne Touba dafa wax ne sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha aw faxtiraar asqit asitqu fi mahabati cheikhi abad nee na li li jiitu ci melawu murid saadix war a mel mooy dëggal ci sopp sab sëriñ ndax boo ko loo def ci moom yàlla du ko nangu summa imtithaalu amrihi xaytu warat nee na nga topp ay ndigalam saa su saa su ndigal la accès wa maahu salabu l ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari nee na nga fexe ba bàyyi tànnloo sab sëriñ te wa tarku l ictiraadi mutlaqan walahu bi baatinin alayhi fi ma xatahu nee na nga bàyyi di ngat sab sëriñ nee na yi nag benn bu ci manqué bu ne bu fekkee tudde nga sabab murid saadix na nga xam ne tuddoo doona muuri sadex kon nañu xam ne baatum ndigal dégg naa ngeen di ko wax fii léegi waaye murit ndigal moom ñoo ko moom ndigal nag lislaam ci boppam da ko fonk ndax boo delloo ci alxuraan suñu borom day wax ni inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahulan suñu borom bi nga xamee bi nga xamee ne bind na xel boo ko jox asamaan ak suuf si dañoo bañ ngir xam responsabilité bi nekk ci xel ndax ñoom dañoo wax ne suñu borom na leen bàyyi mu leen di tànnal bind leen ci ba duñ ko mën a mooy doomu aadama nag moo tànn jël xel xel moom yi nga xam ne la suñu borom jël nag jox ko doomu aadama mooy amaana boobu muy wax xel moomu nag. suñu borom dafa wax ne innahu kana zaluman jahulan doomu adama ñàkk xam gi mu ñàkk xam te réere moo tax mu nangu ko jël ñu xam ne kon nag nit ki ñëw jël jëm ci sëriñ bi jébbal ko boppam loolu liberté la ndax xel xel ci boppam mooy liberté doomu adama bu mu sëkk kon ki jug jug jóge fa mu fa mu dëkk kenn woowu ko mu ñëw ci sëriñ bi jébbal ko boppam na xam ne ci liberté bu mu sëkk la ko defee liberté boobee na kon lépp loo xam ne sëriñ bi digal na ko da ko war a jëfe te bu mu ci am lenn lu mu sikk sakka loolu mooy li nga xam ne murit yëpp war nañ koo xamaat te delluwaat ci te xam ne nag li nga xam ne jamono da ko indi muy ay baat yooyu xew di xew yi muy li nga xam ne li ñu tudde al irhab al irhab li nga xam ne dañuy terroriser nit ñi ba nga xam ne bu ñu la waxee baatu ndigal da ngay tiit ñu xam ne la baaxoon suñu borom du ko sopp mukk ba ba àdduna tukki la baaxoon mooy baax bu faw la bonoon tam du du baax bu mukk képp koo xam ne nag yaakaar nga Sëriñ tubaa ndigal li nga xam yaa ngi koy jëfe ci moom la nga xam ne may na la ko teg nga sa bët résultat li nga xamal sa bopp fa nag moo gën a wóor lañ lay wax kon nag na ci ñëpp tënkuwaat te yaakaar Sëriñ Tuubaa liggéey bi nga xam ne nag Sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar joxe na ko muy jumaay Sëriñ Tuubaa jii ñu war a tabax ci Ndakaaru muy jumaay joo xam ne suñu borom ko dañ ko tuddee cheikhul xadim ndax fàttali woon naa fa bi ñu teg xeer wi boo demee Makka ak Madina da ngay dégg ñu wax masjidu Omar masjidu abou Bakar ak masjidu Aïcha loolu waral ñu tudd ko jàkke cheikhul xadim waaye nañ xam ne wa anal masajidi lillahi fala tad'u ma'a ahadan sëriñ bi nag ba mu ko bëggee rek la suñ borom dogal ne dana am fa sansé itam la daal di yëkkati ñetti milliards ak téeméer million def ko ci ne moo ko tàmbalee boobu ba tey itam taalibe yi kenn ku ne tey jii ma xëyee léegi rek ñeenti nit woon na ma kii joxe ñaar fukki million kii joxe fukki fukki million kii joxe fukki million juróom boobu ba tey taalib yaa ngi joxe kon nag lool noonu la yoon yu doxee nañ fexe ba tënku ci li nga xam ne noonu la yoon wi doon doxee ba si bi ndax bu ñu ko defee rek mboolem li nga xam ne bëgg nañ ko te sëriñ bi yéene ko fas ko fas koo yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ak ci yoon yëpp danañ ko am ni ñu ko bëggee dégg nga waxtu dafa gàtt nag te mënatuñoo jaar ndax li ma waxoon dama tënk bu noppi moo tax li nga xam ne waroon nañu ko ci waxaat dañ koy tënk def ko ba jeneen jëm jamono ñaan itam ci barkeb Serigne Touba képp koo xam ne ñëwoon nga fi le Serigne Touba suñu borom wax ne képp koo xam ne siyaara si nga yàlla na suñu borom jéggal see bakkaar yàlla nga tàbbi ci loolu. le Serigne Touba ñaanoon wax itam ne yow sunu borom na nga jéggal te faj aajooy képp koo xam ne sax na ci di ma liggéeyal waqdi xawaaij allasina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu te ñu xam ne Serigne Touba fàggul nañu loo xam ne kenn mënu ko fàggul sow ndax fàggul nañu adduna adduna ak àllaaxira ak teranga joo xam ne àndut ak àndut ak teraanga ju àndut ak coono ak àjjana joo xam ne àndut ak xisaab moo tax mu wax ne mu ma sa wax ne defal naa leen loo xam ne buur yi duñ leen dàq kër duñ leen dàq fu ñu dëkk duñ leen dàq lu ñu sonn duñ leen dàq lu ñu lekk te kuy rëbb góor tegg leen loolee ñu Sëriñ Tuubaa defaloon nag nañu xam ne doy na sëkk te buñ ca yemee te yëg ko mboolem loo xam ne bëgg nañu ko Sëriñ Tuubaa danañu ko defal li ma koy jeexale rek mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa ma sa wax dafa ma sa wax Abdou Diouf ne ko sa doole ji nga am dafa son ndax ci doole Sëriñ Tuubaa ji mu ne ko li tax ma wax la ko it mooy boo woote woon tey damaa soxla junni nit ma soxla junni nit nee na man ngaa am li ma am de waaye duñ bokk nu bu ma waxee nag képp yaakaar Sëriñ Tuubaa na nga junni nit yi ñëw te duma leen jox paas duma leen jox ñu lekk te duñ xam li ma leen doyee moo ne ko yow nag boo wootee da nga joxe paas da jox da leen jox añ tak dañ leen wax liñ ñu leen di doyee kon nag nañu xam ne Sëriñ tubaay defal nañu loo xam ne mboolem li ñu bëgg rek balañ koo bëgg sax defal lañu ko ba noppi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh